le président Bassirou Diomaye Faye nee na sañoon dina teew fii tey jaww waaye mu ñoo teew fépp moom dem na côté Nioro ba Fatick man ma jël côté bii ba Tamba ba Kédougou waaye xam na ni sama teewaay ci jëmmam laa ko représenté gëm naa ni kenn ku nekk si yéen yéene woon na président Ousmane Sonko nekk candidat nekk président de la République. wax leen leen est-ce que xam ngeen ni Bassirou Diomaye tey moo ma gën man mii man gën naa ni moo a gën a jub moo ma ëpp organisation moo ma ëpp méthode kon kooku moo ko wóoloo jiital ko muy nitu valeur dama gëm ni ni ma waroon def yëpp mun na def lu ko ëpp ak lu ko raw ak lu ko gën gars amatuñu argument léegi nee nañu waa ji nii la mel bu ñu dugg ci débat yooyu am na candidat yoo xam ne bu ñu duggee ci débat wu di attaqué nit ñi physiquement rek Bassirou Diomaye de daaguwul daaguwul de kon nañu bàyyi wax yooyu nit ñi nañu seet lan mooy seen capacité lan mooy seen compétence ndax seen loxo set na ndax bëgg nañu réew mi am na candidat yoo xam ne moo wax leen ko fii bu ngeen leen joxee réew mi xam nañ ni jaay nañu réew mi waa bitim réew ndax seen dund yëpp ak seen jaar-jaar yëpp ci administration ci état fu ñu mus a toog jaay nañu alal réew mi jaay nañu intérêt réew jaay ko ay occidentaux wala ay arab ñun nag dafa jot yàlla may nañu alal bu dul jeex ci Sénégal yéen a ngi dégg pétrole yéen a ngi dégg gaz ay réew yu mel ni Qatar wala Arabie Saoudite wala Koweït wala Émirats arabes lan moo leen jox li ñu am ni yëpp du pétrole ak gaz bu ñu sàgganee ñun Sénégal. suñu pétrole rek suñu gaz bi ngeen di dégg fii ak vingt ans gis njëriñ bi dërëm du dellu si Sénégal parce que niñ ko tëfalee moo baaxul kon suñu demee ba réew mi yàlla may ñu lu mel nii nañu fexe ba teg ko ci loxo yu set huit koo xam ne àdduna du dox ba mu sàcc million waxuma laa ay milliards te kooku mooy Bassirou Diomaye Faye waa Diaw bi est que bëgg ngeen changement parce que ñaar moo fi am de continuer li fi newoon est-ce que baax na ci yéen li fi newoon baax na ci yéen comme baaxul bu dee bëgg ngeen continuer di dund ci loraange ak ci jafe-jafe wote leen Amadou Ba waaye bu ngeen bëgg li ma gis fii yëpp li ci ëpp ay ndaw lañu vous avez un avenir à gérer ñi ci ëpp fii. war nañu sanc war nañoo jël soxna war nañoo joxe dépense war nañoo dimbale seen i waajur foog ngeen ni réew mi ñi muy joxee ni di ngeen ko mën waaye waaye nañu nañu ut leneen nañu làmb leneen bis bu ngeen ñamee suñu loxo di ngeen ne lii fan la nekkoon ci àdduna kon Diaobé ne pàcc ki nu lii la ñu bëgg a loolu mi ngi jaar ci dimanche bii di ñëw heure bii dimanche bii di ñëw jaabu woon nañu kukk ak ay nit ñuy célébrer la victoire président Diomaye Faye kon yoon bi guddi na la ñuy xaar bëri na ñu ngi war a dem Vélingara continuer Tamba war a faraani Kédougou xam ngeen loolu na kon liñ naan lu neex du doy waa jaw beeg namoon naa leen ëpp na ma yéen waaye bu ngeen ñu may li ñu bu soobee yàlla dinaa ñëwaat fii ñu ànd célébrer suñu victoire ñu xam ni c'est le début d'une nouvelle ère mooy l'ère du changement véritable l'ère de la gestion pour peuple et par peuple ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum ñu ngi xam mënu leen xam fu mu toll ci teewaat fii ci jaww may nuyu kilifa yi nekk fii ci jaww jiital ci monsieur le maire monsieur Guirassy teg ci docteur Diawo ma defal commission spéciale nag ci lu bëree bëri nuyu monsieur Ibrahima Gueye bi nga xam ne mooy coordonnateur départemental bi. mbokki jaww waxtaan bi du gudd ndax xam ngeen yéen ñëpp situation bi ñu nekk. fukki fan moo des ci campagne bi te daanaka ñun ba fi mu toll nii ci sudu pays bi la li ñu dese bëri na waaye nag mënul woon ñàkk su ma sañoon damay ànd ak seen candidat suñu candidat muy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax ñoo ànd ba état bu Kolda mais xam ngeen juróom fan dafa néew ñu jàpp ni nag comme yéen ñëpp d'accord ngeen ni Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko moom war na mun a dem benn côté ma dem benn côté ba fu ñuy dajawaat yàlla sédd ma fii nag nga xam ne jaww bi dafa nekk sama xol ñëw nañu fii ci élection locale ne leen yéen waa jaww bi dañ ñaan ngeen wóolu ñu man maa def campagne nationale ñëw ba fii ànd ak suñu candidat ngeen doyluñu dénkuñu kon loolu première étape la woon ci yoon bi nga xam ne moo ñu war a yóbbu fi ñu bëgg a jëm mooy jot ci réew mi ba defar ko ndax commune yi am na solo lool waaye ñëpp xam ngeen ni régime présidentiel la ñu nekk mooy réew moo xam ne lépp daanaka dafa tënku ci loxo président la république. donte ñun nag dañoo ne bu ñu ñëwee loolu dinañ ko fi dindi parce que jël lépp ci réew teg ko ci loxo benn nit musiba la loolu moo ñu andi problème yi nekkee yëpp ci senegal waaye nag balaa nga naan ne fa tant que demuñu ba fa ñuy jëlee décision yi ñu teg ko suñu loxo suñu xalaat lu mu baax baax baax baax suñu programme lu mu set set set mënuñu soppi réew mi kon laaj mairie benn étape la ci woon. ñëwaat ne leen jox leen ñu ay député deuxième étape la ci woon waaye dañoo nekk ci étape bi ëpp solo ci étape yi mooy fexe ba fal président la république boo xam ne xarañ na jàng na am na xam-xam waaye surtout loxoom set na wicc foofu la ñu toll mbirum programme ko fi discuté ndax yéen ci suñu taxawaay ak suñu doxalin bi ñu duggee ci politique ak léegi ak li ñu sàpp ci réew mi ci politique yéen xam ngeen suñu programme ba pare suñu programme weesuwul bëgg réew mi yàlla li mu ci def ci alal yi téel ko suñu bopp ko séddale bu rafet waaye mi loolu xam ngeen ko pare la ca des mooy ngeen réew mi suñu loxo te réew mi nag bu ngeen ko tegee ci loxo joomaay fay teg ngeen ko ci loxoy wóor te bu ngeen ko tegee ci loxo Diomaye Faye teg ngeen ko ci loxo Ousmane Sonko waaye bu ngeen ko tegee ci loxo Diomaye Faye teg ngeen ko ci loxo ab projet parce que ñun amuñu culte de la personnalité jëluñu ab nit rek def ko ab yonent wala ab yàlla moo tax ku ñu tegee dangay ngay ànd ak ñëpp rek ñu am projet li ñu gëm ñun ñu ëpp fii li ñu gëm muy alquran daf ñu jàngal ñu te yonent bi doon waxal yonent bi rek moo ñu gën moom la yàlla yónni waaye même moom yàlla daf ko ne bu jëf jotee la toogat ñi nga àndal yëpp ngeen sottante xel wa amruhum amruhum shuuraa baynahum mooy yow ak nooy doon yeneen ñi ngay doon yeneen ci yëpp ak sa xam-xam ni muy bëri yëpp waaye yàlla dana ko bu jëf jotee njëkkal dajale ñëpp nga déglu xel yi parce que xalaat bu baax mën na jóge fu nekk waaye nag wa izaa azamta fa izaa azamta fa boo dégloo nit ñi ñu wax ba noppi nga jël xalaat bu jël na tënku ci yàlla daal di li sa xalaat jox rek appliqué ko loolu mooy projet Pastef du ab nit rek bu ñuy fal mu ne man dong la maay buur maay buur man da koy juum man da lu ma neex ma def loolu amul ci Pastef kon ñun projet la ngeen jaay da ngay di voter am na solo trop ci projet bi waaye day liggéey ak ay nit yoo xam ne ay nit yu bon lañu fii ci ñi ma àndal man maa ngi ànd ak xam ngeen ni Dame Mbodj nit xam ngeen ni tappale tax koo jóg parce que tappale taxoon jóg heure bii am naa gars yi di jox ko lu ne maa ngi ànd ak Moustapha Mamba Guirassy yéen xam ngeen ne du tappalekat noonu laa mën a cité ñi ñu àndal ñëpp ay nitu valeur lañu kon da ngeen ñu voté pour